waaw Abdou Hakim Ka président bu parti Dëggu membre aussi la coalition jot alors euh, monsieur Ka euh, Equivox TV mu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa teewaay fii tey justement ñu nar a waxtaanee loo xamante ne ni moom moo soxal réew mi tolluwaay wi ndaxte gis nañu violence yi fi amoon récemment jeex na waaye bu ñu doon def benn taxaw seetlu maanaam benn bilan gis nañu lu toll ci daanaka fukki doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan plus de. Euh, cinq cent personnes également am ci ay gaañu gaañu yu métti mitti sax euh, yow boo doon def bilan par rapport ak li fi xew euh, récemment ban jàngat nga ciy def. waa jërëjëf jërëjëf comme li nga wax rek si bilan bi fan yi si ginnaaw dañuy génn si ay yëngu-yëngu yu xaw a metti mhm. ñu koy naqarlu di ko mettitlu mhm. di jaal aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan di ko leen jaal seeni mbokk di ko mettitlu bu baax a baax a baax. di ñaan yàlla aussi yu mel nii mu bañ a tey amati euh, ñëpp taxaw si ñëpp xaar si seen tànk tubéy muy autorités yi muy ñi nga xam ne ñu ngi fare ci nguur gi ak ñi nga xam ne farewuñ ci nguur gi ñu góor góorlu daal ba yu mel nii mu bañ a tey amati ndax nit ñi ñàkk nañ ci seen mbakkan am na ci ay blessé mais aussi ci côté économie bi aussi dina ci laal bu baax a baax a baax. alors foofu dinañ fa ñëw mais en attendant ndax yow euh, mbir mi ni mu demee maanaam colère bi nga xamante ne nii daanaka mën nañoo jàpp ne li ñu teg yoxo Ousmane Sonko moom moo ko daal di indi ndaxte ndax nekk na loo xamante ne nii lu la surprendre la yow. waaw xam nga nag man damay faral di koy wax euh, li ñu jàpp Ousmane Sonko peut-être élément déclencheur la damay faral di wax que rek. senegal tey boo jëlee senegal wala àdduna bi sax nit ñi dañu sonn boo jëlee senegal économie bi mu ngi dellu ginnaaw bu baax a baax a baax a baax ndaw ñi liggéeyuñu am na ci ñu bëree bëree bëri ñoo xam ne tey bi mbas mi dugg see ci réew mi dañu perte dañu ñàkk seen bérébu liggéeyukaay mu nekk ay mbir yu metti te aussi nañuy góorgóorlu ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite di góor góorgóorlu ba ñi nga xam ne ñu ngi seen ginnaaw di gis ci ñoom ay exemple yu rafet di dégg ci ñoom ay wax yu rafet si côté gestion euh, des affaires de l'État parce que ndaw ñi bu ñu nekkee liggéeyuñu tout le temps ñuy dégg ay affaires yoo xam ne ci ay luubal la généralement du mujj fenn mën nañu dem ba loolu mën na dem ba am lu mu def ci seen biir ba mu révolté loo leen. d'accord yu mel noonu. ñu ngi ñaan nit boo jiitee da xam ne da nga jiite nga góor góorlu ba liñ la dénk nga awale ko yoon nga góor góorlu ba ñi nga xam ne ñu ngi sa ginnaaw nga fexe di wane ci sa bopp exemple bu rafet. d'accord ñu gis ne sànq wax nañu ko am na ci ñoo xamante ne ni fi mu toll nii teg nañu leen yoxo ci manifestant yi la ñu bokkoon fi mu toll nii donte ñu ngi def bilan bi lan moo war a nekk sooru ñooñu nga xamante ne nii teg nañ leen yoxo jamono ji. waaw xam nga nag mbir mi bi mu amee. am na si ñoo xam ne dañu leen jàpp si biir manifestation yi ñu nga xam ne jàpp nañ leen si biir manifestation yi ñi leen jàpp ñoo tax li ñoo xam li tax ñu jàpp leen parce que gis nañu euh, ay magasin yu ñu yàq gis nañu ay boutiques yu ñu yàq gis nañu ay Auchan yu ñu yàq gis nañu ay station Total yu ñu yàq te loolu ku nekk aussi ci réew boo xam ne réewum droit la war nga ko wormaal war nga fexe ba doo yàqal sa prochain war nga fexe ba doo yàqal sa moroomu citoyen parce que loolu noonu nga xam ne tey yàq yàqal nañ leen mais ñooñu aussi bëgg nañ ñu rétablir leen ci seen droit donc. ñi ñu yàqal ñi ñu yàqal. alors justement yàq bu ñu ko tuddee sax maanaam am nay dégâts euh, dégâts yi bëri na lool sax. léegi ndax yaakaaroon ne lii bu ñu ci jógee ndaxam lu ñu gën a dem ci pauvreté. waa lii nii baaxul ci réew comme ni ma ko waxee sànq baaxul ci réew day gën day delloo économie réew ginnaaw day delloo réew ginnaaw te ñun dañu retard bu baax a baax a baax par rapport ak yeneen réew yi waxuma la euh, Europe wala lu demee noonu waaye Afrique fii rek dañu retard. par rapport ak yenn réew yi ne pauvreté dina gën a am. dina gën a yokk bu baax a baax a baax dina gën a yokk parce que tey euh, ñi ma tudd tey muy Auchan dinañu xoolaat bu baax a baax a baax nu ñuy defee fii si biir réew mi te aussi ñi nga xam ne ñu ngi si doon liggéey perte seen ñoo ñu fi mu toll nii ku nekk xam na réew mi fi mu toll ci am liggéey am liggéey yombu fi daf fi jafe. d'accord léegi ñuy tiire ba tey billan bi la yoon dañuy dem ci benn euh, ponk bu am solo muy justice. justice avant ñuy dem ci wàllu démocratie justice bi fi mu toll nii am na lu fi xewoon euh, violence yi am na lu mu wane euh, fi mu toll nii lan moo war a nekk taxawaayu suñu justice fii ci réew bu Sénégal ginnaaw ba violence yu métti métti yi am après yi fi amoon en 2012. xam nga man damay faral di ko wax justice bokk na ci liy tey réew justice bokk na ci euh, li nga xamante ne si moom rekk moom moo mën a yóbbu réew si kanam. waaye moom tamit moom moo ko mën a reculer loo parce que justice bu dëgër su amee ci réew ku nekk dina xam bu baax a baax a baax fi muy teg tànkam justice dafa war a équitable justice dafa war a warul xool xaj ak seen justice ci ma ci façon général mm-hmm. donc loolu noonu su amee ci réew justice bi moom moo war a mën a taxaw taxaw ak ñaari tànkam taxaw yemale ñépp képp koo xam ne victim nga mu rétablir la ci say droit képp koo xam ne aussi taxewoo ci walla laalewoo si ñu bàyyi la nga dem vaquer à tes occupations gis nga justice corps la te corps bu nekk ña fay liggéeyee ñoom ñoo ko mën a siggil euh, justice am na fi ay cas yu bëree bëree bëri xëy na li tax yenn sénégalais yi di xaw a ragal tuuti wala di xaw a souligner yenn points yi peut-être ay seetlu ñuy def la ci côté justice mais man demanaan naan. waaw action Ousmane Sonko bi problème Ousmane Sonko bi ak ni nga xam ne noonu la réew mi yëngoo ak ñi ci jàpp ñëpp justice maintenant c'est l'occasion pour moom mu won sénégalais yi que ne justice. bi fi amoon en 1961 60 62 moom moo continuer di fi am. d'accord alors euh, ci noonu comment se porte démocratie bu Sénégal. waaw démocratie bi moom mu ngi reculer bu baax a baax a baax démocratie bi moo ngi reculer ñu ngi viole loi ñu ngi viole règlement yi te euh, en général yooyu noonu ñuy violer amoo fenn foo ko mën a jooytu mais démocratie. mu ngi reculer sax mu ngi reculer bu baax a baax a baax parce que tey bu ñu jëlee tey euh, secteur u élection ku nekk gis na euh, élection 2019 yi ñu génn galgal bi nga xam ne euh, parti au pouvoir dugal nañ ko ngir wàññi yenn parti politique yi bu ñu demee si côté démocratie gis nañu aussi en 2016 élection Euh, référendum yi nga xam ne jaar nañ fi gis nañu bu baax a baax a baax galgal yi nga xam ne dugal nañ ko fa te tey boo jëlee aussi lu mel ni manifestation manifestation dañuy dollee di ko wax dañuy continuer di ko wax manifestation nekkul ne da nga war a ñaan autorisation manifestation da nga yëgal autorité bi que da nga war da nga bëgg manifester d'accord maintenant boo ko yëgalee moom li mu war a def mooy ñëw encadrer manifestation bi ñëw encadrer ko ba mu jeex ak jàmm. d'accord fi mu toll nii jeex ak jàmm yéen fan fan ngeen toll ci seen i jéego comme que nee ngeen coow li coow li du Ousmane Sonko rek lan ngeen fas yéene def. waa ñun li ñuy fas yéene def mooy continuer di wax continuer di di ñaax nguur gi. di ñaax aussi jeunes yi nga xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi bu ñu xeeb dara nañu liggéey ñun mën naa ne la sunu combat lu ci ëpp foofu lañ ko orienté fexe ba ñi nga xam ne jànguñu ñu jàng. ci noonu lan ngay wax Macky Sall son président le président. waaw li ma koy wax mooy ci message am bi mu def bërki démb ci discours bi mu def bërki démb discours bi vraiment ñëpp rafetlu nañ ko waaye dafa am lu mu si wax. jëmale ko ci jeunesse bi moom personnellement reconnaître na que ne jeunesse bi liggéeyuñu donc na góor góorgóorlu moom bàyyi xel jeunesse am bàyyi leen xel bu baax a baax a baax mais jeunesse bi fii mën nañ liggéey Sénégal fii jeunes yi mën nañu toog fii ñu liggéey il suffit tout simplement que état bi am volonté bi il faut ñu am volonté bi d'accord il faut ñu am volonté bi mais monsieur Ka euh, Equivox TV mu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa teewaay fii tey. maa leen di sant. jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup.